abal sa kayit ngir bàkk seex jiili te yëgle bis bii ñu koy wootee li tab jiili ab bis dafay màgg màgg ak xew-xewam ba ca am moo tax bi la bis yeyoo siiwal te koy teele mboolem ku may dégg waajal teewe boo bala bis ndax yàlla jox la ci ay xéewal ba doo jeele asalaamaaleykum bokki taalibe yi ñoo ngi fii ci pàkk bu sel toog fii ci kër Cheikh Abdoul Khadir yi li maa léegi sëriñ Cheikh Mbakke moom Cheikh Abdou Khadir jël ndigal ca magam ja Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi seriñ Touba tey sëriñ Cheikh def na mu daa def jox rakkam ji sës ci moom jàppale ko ci lépp taxaw ko ñoom ñaar ñuy benn muy sëñ Moussa Mbakke mu Cheikh Abdou Khadir liggéey boobu ñu teg ko ci sëriñ Sidi Mbakkeem Cheikh Abdou Khadir mi nga xam ni mooy organisation màggal gi ak ñi ko àndal ñetti fan ci weeru tamxarit di la ci weer wi nu jëm muy bis bi mu gane woon jamono te sëriñ Touba waxoon te maam Cerno Ibrahim ndaamal daaru la mu ko waxoon Cerno munu ko mbakke munu ko yéexal say jéego ba ngay dem ba ba ngay ñëw koo dajal du dem safara kon Cheikh Abdou Khadir la ñuy fàttaliku ñaanal ko fàttaliku ci moom jukkoom ya ragal yàlla maanu doonas gor ak ñaanal taawam ba ko wutu woon sëñ Modou Mbakkeem Cheikh Abdou Khadir noo ngi leen di nuyu si turu Serigne Cheikh moom Cheikh Abdoul Khadir ci teewaayub Serigne Moustapha Mbacké rakam ak Serigne Sidi ak mboole mbokk yi fi teew yëpp ni ko ab Ablaye waxee bis bi nag mooy noonu mu demee rek dellusiwaat na ci jàmm ak salaam ñoo ngi ñaan sant yàlla mi nu fi bàyyi ñu fekk bañ fekkewaat ko des di ñaan mu bàyyiwaat nu fi bañ fekkewaat ko ay déwén incha allah barkatu Cheikhul Khadim Cheikh Abdoul Khadir nag noonu rek. ni mu ko waxee ni la demee day jëmm joo xam ne ji moom dafa judd rek nekk imaam yaakaar naa ni musta nekk fenn maamum noo ngi ñaan kon bis bi képp koo xam ne teew nga ci wala nga am yéene teew ci walla nga def ci sa alal wala nga am sa yéene ju rafet def ko ci yàlla nan bokk jëriñoo njëriñul bis boobu yàlla sunu borom taas na ci barkeem yàggal fi kilifaam eh, njabootam gi ci sunu kanam di sunuy kilifa Serigne Cheikh ak rakam yàggal fi njabootu Serigne Touba gi yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha euh, te dallu ni jàmm defal mucc ak xeewal wa bi minhu wa taxta ishraafi Serigne Cheikh xalifati Cheikh Abdoul Khadir Mbacké alladi kallafani bi an atanaawala alkalimata niyaabatan anhu natasharrafu kalmuctaat bi daawatikum daawatan aama lilxuduuri walmusharakati maana fi lfaaliyaati diiniya allati sawfa nuqiimuha fi thaalis min aylul septembre alqaadim fi fi thaalis min min aylul septembre alqaadim taxliidan li dikra milaadiyati alxalifati arrabia li taifati almuridiya wal imaami al awra wa sunniyi bi kulli ma taamiluhu alkalima min maanin wa dilalaat Cheikh Abdoul Khadir Mbacké wa hadihi dikra tuhaddu min almunasabat alazima allati la tajuusu an tamurra alayna doona an tatruka atharan fi tafkirina wa masaari xayatina fa kayfa la wasiratuhu alzatiya kulluha tudakkiruna bilmahaani annabila wa tuhayi'u lana forsa muwaatiya lil xusuli ala taaqa ruuxiya tujaddidu xayaatana wa tusaxidu xazimatana wa imaanana wa tuqawi iraadatana li annahu kaana min annamaadij albashariya alladina rabaw fi lmadrasati alqadimiya wastawcabu jawhara alislaam wa xaqiqata muctayaatih fa asbaxu kama kaana rasulu sallallahu alayhi wa sallam qur'aanan yamsi ala al kaanu hum kadalik xarafoo xuquuqahum wa xarafoo wa xarafoo waajibaatihim fa xafizuuha wa xamiloo bi muujibiha wa min thamma kaanu almusula rafia fa jasaahumullahu an ilislaami xayran ci ndigalul sëñ Muntaxa ak ci kilifteefam ginnaaw ba ci sëñ Seex jotee ndigal ci moom ba mu jox ko ndigal ne ko yeesalaat ndigal yeesalaat naa ndigal li na ngeen ko wéyal ginnaaw bu mu jotee ndigal loolu ci boppam moom suñ seex moo ma jox kàddoom ngir ma jot li leen ginnaaw bu mu jotee ndigal loolu ci sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo fi toogal jataayub sëriñ bi ginnaaw boobu moo ma jox kàddu gi ngir ma jottali leen niñ ko baaxoo woote màggal gi nga xam ne mooy màggalu sëñ Abdul Xaadir gi ñu baaxoo woo leen ci te woote bi nag ñëpp lañu woo bàyyiwuñ kenn setteewuñ kenn ni ko wolof yi daa waxe woote ba bëstal lañ woote waaye woote wuñ wootu ketteeju ketteeju ci wolof mooy woo ñi bàyyi ñi ba bëstal mooy woo ñëpp ñëpp lañu woo ci bis bi nga xam ne moom la ñuy defal Sëñ Abdou Khadir tam war a dëppoog ci weeru tubaab ñetti fan ya ci septembre bi nga xam ne mooy waa ji ñëw ngir bëgg a fàttaliku ilima ki nga xam ne mooy ñeenteelu xalifa bi yoonu murit di ilimaan ji nga xam ne ci ñi gën a sàmm la bokk di ab sunni yu boo xam ne lépp lu tegta lu baatu sunni yu di tegtale rek jëfee na ko waxe ko ba ñëpp xam ne sunni yu la fàttaliku uh, uh, fàttaliku gu mel nii nag fàttali uh, wërta jaar ci ñun jàll rek te bàyyiwut ci ñun jeexit fàttaliku ku mel ne sëñ Abdou war naa jeexital ci suñ xalaat ak suñu dund nan la ciy mën a bañ a jeexitale sax te buñ dundam bépp boo koy fàttaliku ay maanaa yu ngëneel yu kawe la lay jàngal di la indil ab di eh, ab forsa am nos boo xam ne da nga ci mën a am kattanug ruu sa ruu dana sarsiwaat bu doon bëtëri dana sarsiwaat ndax boo dégg li mu doon jëf ci digganteem ak yàlla ak li mu doon jëf ci digganteem ak mbindeef yi dana sarsiwaat sa kattanug ruu dana yeesalaat sa dund dana daggiwaat sa dogu ak sa ngëm dana dëgëril sa nammeel ak sa taalibe ndax moom mi dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ay ro ay royukaay yi la royukaay yi nga xam ne dañoo yaroo ci daaree sëriñ bi te li lislaam dëgg dëgg dëgg lislaam ñu ñu ñu wattu ko te jëfe ko dëgg dëgg dëgg na lislaam mel islaam ju raxut dara kooju dara ak li lislaam indi moom la nekkoon di ko jëfe loolu nag mi ngi ko jëlee ci madrasatu xaadi xaadimul Mustafa ba tax ñoom mujj nañ ñoom ñi ñee ñooy sëñ bi yar mujj nañ mel ni al loolu yonent bi Aysatu waxoon ne eh, sallallahu alayhi wa sallam alxuraan ji dox la ñoom meloon nañ noonu ko lay seen ak xam nañ ko lay seen wartiif xam nañ ko seen digganteeg seen borom ak ci seen digganteeg mbiri mbinde bi moo tax ñu nekk royukaay yu mag kon nag yàlla na leen yàlla na ko yàlla fay moo ki kemam yépp fay sëriñ bi nga xam ne moo def ci ñoom loolu ci je ci jeexte njeexteel wax ji nag maa ngi ñaanal sëñ taxa yàlla dolli ko gu wér dolli ko jàmm àggale yéeneem mook ay bokkam yépp yàlla àggal wattu leen wattu yoonu murit wattu réew mi te def fi jàmm ñi ngi yëgal ñëpp moo ñoo xam ne ñu ngay bokki taalibe yi nag mboolem kuy mbokk yëgal nañ la ko dana am ñoo xam ne nag ñooy ñëw lim waaye mboolem kuy mbokk ak mboolem sa masaayiq turuxu soofiye ñu ngi leen di yëgal bis bi mboolem taalibe yi aju ci seexul xadim yëpp ñu ngi leen di yëgal bis bi mboolem kilifa yi aada yi ñu ngi leen di yëgal bis bi jànkati alxuraan yi xasaayit yi moom it ñi ni ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew ñëpp ku ci na nga daal tàmbali sab dog te fas yéene loo doon jàng na gën a sell te gën a bari ak luñ ci mën a dolli ci ay salaatu ala nabi xasaayit nag moom lépp ngi ci ndax salaatu ala nabi te mu ngi ci biir fees ji del ñi ngi ñi ngi koy yëgal nag mboolem kilifa yi Eh, eh, eh, adduna yi ginnaaw bu ñu ko yëgalee nii di ko yëgal président de la république moom it président Macky Sall la ñu ngi ko yégal ci turu suñu seex di ko yëgal mbooleem kilifay yi aada yëpp nag ñi ci des danañ indi seen i ñoom ñëpp di ñaan képp kuy ñëw rek na nga àndaale bagaan te bagaan yi yàlla na ko yàlla feesal ci darajey sëriñ Touba ak darajey lim sedd Serigne Abdou Khadir wa kullu aamin wa antum bi xayrin wa salaamu aleykum ginnaaw bu ndigal di jógee fi mu war a jógee jaar fi mu war a jaar ba agsi ci sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir moom mi nga xam ne moo yor kàddu kër gi moom mi nga xam ne mooy coordonnateur bis bii moom lañuy wax ci dëggalam sëriñ Sidi nee na woote bi nag <coughs> ñu ngi ko jëmale ci mboolem képp koo xam ne kii jullit nga nga di <coughs> dëkk ci réew mi rawatina ak nag ñi nga xam ne ñoo la mi mooy bokk yi te ñu tàmm day bokk ci maam ma aram ak nuñ ci bokke moo xam góor lañ ci boole wala jigéen ak ñi nga xam ne mooy njabootu euh, Maam Mor Anta Sali gépp ñu ngi leen ciy woo fu ci waaye mën a nekk di ci woo mboolem njabootu si Ahmadou Khadim ki nga xam ne moom la ñu bokk Serigne Touba li tàmbalee ci Cheikh Mahamadul Moustapha ba ci njabootu Cheikh Mahamadul Mourtada tàmbalee ci njabootu Cheikh euh, Soxna Fatimatu Dia ba ci njabootu Soxna Maymunatul Makki al Kubra ak mboolem bokki jegeñaale yëpp di woo mboolem seex yi nga xam ne ñoo aju Serigne Touba ñëpp ak fu ñu mën a jóge mboolem seex yi amul kenn ku ci bàyyi woo nañ ñëpp te Serigne Khadim xaatu ñëpp la woon mbokkum ñëpp la woon wala réew ñëpp la woon ñu ngi woo itam mboolem daayira yi nga xam ne ñoo aju kër gi ak fu ñu mën a nekk ak fu ñu mën a bokk bàyyiwuñ kenn mboolem ñi nga xam ne bii dañoo baaxoon ci bis bii di waajal ay ay xéewal di ko indi ku mel ni sëriñ Cheikh Baara Mbacke ak jabootam ak sëriñ waa sëriñ Cheikh Ñang Jaabi ak jabootam gépp ak waa ak sëriñ Seydou Ñang ak mboolem ñi nga xam ne bii baaxoon nañoo def ay ay ay teraanga di joxe ay ay xéewal di ko indi bis bi ñu ne mi ngi leen ko leen ci leen ko soññi lañ ci doon defee nañ ko defee ba def lu ko doon incha allah nee na nag mi ngi woo ñëpp di soññ ñëpp waa rawatina ak ñi nga xam ne bii nag ñooy waa borom kër gi te ñoo jiitu ci kër gi ci bokk ci jawriñ yi bokk na ci ñooñu ku ñu monsieur Pape Diop su ñu nee mi ngi soññ bu baax di ko fàttali bis bi di woo Souleymane Ndéné Ndiaye moom itam mi ngi soññ bis bi di ko woo di woo sëriñ Alioune Badara Cissé Abdoul Karim Fafana ak sëriñ Aramine Mbacke di mbokk di taalibe di woo itam sëriñ Xaadim Diop ak sëriñ Galas Maane Mbàkke ñoom ñëpp ñu ngi leen soññi kenn ku ci ne fa nga daa taxaw na nga def fas nañ na ñaan nga def lu ko te yokk yaan suñu Tuubaa nag képp koo xam ne kii dikk nga ci bis bi wala nga am yéen dikk ci bis bi wala nga taxaw ci yàlla yokk la ba nga yëg ko yàlla yokk la ba nga yëg ko te yàgg fi lool te wér barke suñu Tuubaa di yëkkati suñu kàddu it ci turu mboolem njabootu sët sëriñ Abdou Khadir yëpp noo mën a bokkee ci Abdou Khadir muy mbokki mbusoo bi turandoo yi nga xam ne ñoo baaxoo di ànd di yëkkati bis bi nga xam ne moom la ñuy waajalee màggal gi muy conférence bi tan baaxoo ko ànd ak turandoo Sëñ Abdou Khadre yi ak bokk yi ak euh, euh, ak sët yi ñoom ñu ñett ko baaxoo di ànd ak mbokki taalibe yëpp euh, ci biir yëgle boobu nag ñu ngi ciy jiital mboolem ñun bokkal Sëriñ Tuubaa ñëpp li tàmbalee ci njabootuk Cheikh Mahamadou Moustapha ba ci njabootuk Cheikh ak njabootuk Soxna Fadja ba ci njabootuk soxna Maymuna ñu ngi ci woo mboolem ñun bokkal suñ Mor Anta ñëpp mboolem ñun bokkal maam Balla mboolem ñun bokkal maam Haram ñëpp ak mbokki mbusoo bi yëpp di ci woo mbokki taalibe ak mboolem uh, seexi Sëriñ Tuubaa yi bi nag mi ngi war a doon la première lañ koy def fii ci Kër Sëriñ Abdou Khadre ci gannaaw takkusaan incha allah conférence bi uh, thème biñ nag mooy alxitaabul muriid yiw masuliyatun wa taxaddiyaat muy thème am solo boo xam ne sëñ Fallou Bousso Xasan moo koy mooy def waxtaan wi waxtaan mi ngi tàmbali ci bu 17 heures jotee bu ginnaaw takkusaan san la ñuy tàmbali waxtaan wi bu ko defee mu mën a teel a àgg incha allah ñu ngi ñaan suñu borom yóbbu ñu ci ak jàmm te mboolem luñ ci defit ñu daje cee ngërëmul borom bés bi. di leen woo ci bis bii nga xam ne amuñ lu may moom muy bis bi nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy suñu bunt ci Serigne tubaab muy Cheikh Abdoul Khadir te képp ku fi ñëw di gan ñun ñoo la war a ñoo war a war a teeru ñoo war a war a teral kon nag fi ne nii ki amatuñu waajtaay saa saa bu ñu xëyee ki liy war a dox jëm mooy luy jagal bis bi kon ñu ngi woo mboolem daayira yooyu yaa yaakaar sëñ Abdou Khadre ak fi mën a nekk di ko tàmbalee ci fédération Dakar ci turu euh, sëriñ Cheikh Goumbala mi nga xam ne moo jiite fédération Dakar yëpp ak fédération waa waa Italie waa Espagne ak ak Amérique ak France ak mboolem daayira yi aju kër Sëñ Abdou Khadr ak fi ñu mën a nekk. li nga xam ne moom lañ baaxoo woon yi ñu baaxoo woon joxe ci màggal gi itam sëriñ bi nee na mi ngi leen koy fàttali ñoom ñëpp kenn ku nekk eh, boo jurul lettre itam na nga xam ne boo déggee appel bi mooy mooy mooy sa ñu ci wooteel bi yëpp foo fooy mën a nekk mu bàyyi lam doon def ñëw ñu teeru gan ñi teral leen ba kenn du tumuranke sëriñ Tuubaa Mbàkke dafa wax ne <clears throat> mi ngi leen di soññ baax ci ndigal yi nga xam ne daanañ ko déglu di ko jëfe mooy dafa bëgg fu ab donga mën nekk ci réew mi ak bitim réew nga bàyyi sa xel ci ne sunu bis bii nga xam ne moom rek moo ñu war a ñor egsi na ku fi nekkut ku ne addi yi nga xam ne daa ko joxe na ko yónnee ñu indi ko fii ci kër gi fii ñu toll ba ba ñu egg ci màggal gi waxtu mu nekk ñu ngi fi. liggéey bi nga xam ne daan ñu ko féetale ci biir kër sëriñ bi ñu fas ko yéene def nu raw nañ ko daa defee. te nee na itam nañ ci jiital ab yar jiital ci ay teggin ak taalibe gu mat sëkk ndax lépp loo xam ne ñu ngi koy roy ci dongam laxasaay bu noppi ci moom lañ ko war a roy ci wetu taalibe neena kon mi leen digal biir kër gii nga xam ne coono gu sëriñ bi lañ ne nañ fi dugg ak ab yar dugg fi ak i teggin te fexe ba njëkk fi te mujj fi te lépp loo xamee ne tam daa nañ ko fi def ñu def ko nañ ko daa defee nee na loolu moo doon digal li nañ ci taxaw te góorgóorlu ci suñ kemtulaayal kàttan yéen turandoo Cheikh Abdoul Khadir yi ñu ngi leen di nuyu ci turu suñu jawriñ Serigne Seydil Mokhtar ibnu Cheikh na Abdoul Khadir mu wax ne nañu jàkkaarloog yéen ngir yeesalaat ndigal yi nga xamante ne rek moom lañ leen daan jox naka jekk ndax soppikuwul ci turu nag euh, suñu njiit di Cheikh Abdoul Khadir mu sëñ Amdi ak soxna Moominatu mu Daaru Salaam moo joxe ndigal ne nañ ñëw fii wax leen ne teg yi nga xamante ne da ko daan cotiser mu daal jëm ci màggal gi soxla nañ ko lool mënuñoo ñàkk nag ñi nga xamante ne ñoom la daan ànd liggéey bi te seen loxo daan ci feeñ muy waa Daaru Salaam waa Gédé Bousso Mbacke Bawal Thiès Louga Kaolack Diourbel ak Jiwaalo Wélingara ak Grèce Kaffrine ak Dakar ak bitim réew yëpp ku ci bëgg nag lu gën a leer du xaj fii lépp waaye boo jokkoo ak moom ci numéro bii rek 77 518 27 19 518 27 boo ko defee rek incha allah loo bëgg ci renseignement da nga ko jot. kii taalibe yi dégg ngeen Serigne Moussa Mbakkeem Cheikh Abdoul Khadir. liggéey bi magam ju baax ji teg ci loxoom mu yaatal ko xam ngeen ni nag cérémonie officielle bi la kaat lay doon bu ñu màggalee ba ca ëllëg sa ci bu dix jotee ndax dañoo bëgg mu teel ndax ku ne xam na Cheikh Abdou Khadir ak waxtu ilimaay teg ba léegi l'islam jëmu ko Sénégal yëbul kooku l'islam lu sunni la boo wax seetee Cheikh Abdou Khadir Mbacké ku mas a jàq baa nga tiit boo ronoo kër gi boo génnee sa bët xong nga dugg booy dem weex na